ndaxte manipulation bare woon na fii wax lu dul dëgg bare woon na fii information bare woon na fi moo ñu jural tey benn trouble boo xamante ni tey Sénégal yëpp koy yeewoo ak

dans l'histoire du Sénégal te Yalla na mu fa yem ma dans un état sérieux nga xam ne ñun on est des Sénégalais euh, de sur quoi mi nga xam la plupart gars Sénégalais yëpp ñoo ci ñàkk mais Ziguinchor moo ci gënoon ñàkk te mu nekk nga xam ne nekkoon na maire Ziguinchor ñu avons créer même suñ def drapeau en berne moi moomu noonu xanaa kon ñu créer ben ñu wàcce kaamil au niveau wax ne Sénégal yëpp fépp fu mu toll nañ créer wàcce kaamil képp ko ko mën rek nang ko def defal ko gars yi wala ngeen defal fidaw pour que ñi nga xamne ne ñoo ci dem yalla xaaral leen arjana mais non xam nga euh, euh la ruse mange son maître té euh, li nga xamne moy manipulation le manipulateur ne comprend jamais que la manipulation finit par manger son propre maître et voilà aujourd'hui tay jël bes bobu nonu au lieu bes bobu nga xamne ne dafa waroon décret décrété ben sénégalais du dem liguey dañuy célébrer day national bobu nga sénégalais ñep ñep ko Ils nga ko mu frappe mu une véritable hécatombe wayé xam nga essentiel ku nek ci détails du xam essentiel ku nekk ci ay détails du mos a xam li nga xam le bien-être des sénégalais ku nekk ci ay détails du mos a comprendre la question de l'heure looloo waral Nous ñu nekk ci ay galimatias nekk ci euh, fanfaronnade politique li may wax sànq sama sa sa si suba si nee euh, ça c'est qu'on appelle opération yoole euh, autant pour moi opération Yakder, der opération Yakder der kese la. Yakder, der ak yow la ñoo bokk de. lépp li nga xamné mom lañuy publier fi di wax dara amu ci.

Nous nga xamanteni ni moo naufrage bi gën historique ci Sénégal jamono ji nga xamanteni tey ki jiite gouvernement bi waroon def li nga xamanteni mooy déplacement dem foofa ca Casamance bi nga xamanteni il est originaire ñu pouvons choisir tey divertir les Sénégalais ci ay ay déballages. Euh, merci Tange je pense que euh, c'est une question très pertinente mais les Sénégalais ont compris nous savons que c'est un habitué des faits mais voilà ma ciy xuus juste nga permettre 30 secondes parce que dafa am si dynamique qui nek la nouvelle responsabilité nga nos collègues. Depuis depuis bañ ko mettre en place je pense que nous avons la am occasion guen def euh, ñu def déclaration de presse ma jëlone cadeau pour représenter les jeunes mais depuis lors amuñu occasion de dem un plateau pour voir euh, d'une manière très euh, concrète li nga nous mom en tant que jeunes. tañ buñ la nouvelle responsabilité Amadou Ba dit ko le mu ci leeral mooy da un parti politique mais la nouvelle responsabilité est faite d'annonce là. li de firndeel le président Amadou Ba assume aujourd'hui sa responsabilité de chef d'opposition Ben Ben bi il va assumer sa responsabilité de chef de parti Mon lancement de King Fat Palace c'était pour créer le cadre bii vers la création maintenant de ce parti bi nga ça sera une nouvelle responsabilité bu Amadou Ba di di am ci scène politique bu Sénégal donc loolu ma bëggone Sénégal yépp xam amando information yi ta mom li tax di tik au ci lancement il fait appel à l'inclusion et à la participation de tout le monde de toutes les couches parce que au lieu de jóge ci kaw di souffrent, ci suuf dafa bëgg a ci souf yékk ci kaw ba ku nekk ak fa nga nekk ak valeur yi ngay incarner nga mën a gis sa bopp si parti bi nga xam ne moom lay mettre en place donc je pense que loolu il fallait que ma leeral ko wala aussi remercier l'ensemble des jeunes qui se battent corps et âme tey dem ci Amadou Ba ne ko le Sénégal fi ñu jàpp ñëpp xam nañ ne dañoo juum à l'issue de six mois les Sénégalais ont découvert que nous avons des manipulateurs du fi dit que c'est un habitué des faits pour nous, sa question les Sénégalais sont habitués à ce discours maintenant parce que je pense que journée commémoration 22 e anniversaire Batulu djola nga êtes le maire de la commune de Jugenshore...

di leen un message bo xamné les collègues dal yëpp ñun gisuñ ne loolu mo am c'est-à-dire aujourd'hui ils ont détourné les Sénégalais ci li nga xamné moy essentiel ci li ñu waron dund tay journée de prière journée de commémoration ñu ñaanalante xol ñom mu nekk occasion ñu teju wat réfléchir si yann initiative lañu ñu jël ba li xewoon babatul jola sour, suux mu bañ a amati da am lo xam da discours da les catastrophes que nous vivons émanent de la négligence de nos chefs d'État de nos gouvernements mon moko et moi je croyais que aujourd'hui devrait être l'opportunité pour eux de s'asseoir autour d'une table ñu réfléchir ces mécanismes yi les mettre en œuvre pour que situation yu melni ni jola Joola bañ cee amati même bu fekkee da nga bëgg mais de génn def une thématique spécifique par rapport à ces catastrophes conscientiser les gens pour que yu les pas Mais am mais es là, la monde tu ci là on va faire avec. comme nous ma tu waxee là on va faire avec